allo sage femme. ay couple ngi ay at ñu ngi sëy waaye mosuñoo dégg jooyu liir bii mu nekk jooyu xol ci ñu bari. dem naa ba dama découragé mu ne man yàlla kañ la may may kañ nag laay ne man ëmb naa maa ngi nàmpal sama doom maa ngi koy sang maa ngi koy couche être une mère. maa ngi sëy mu maa fexe ba am doom mu metti trop si man. ñëpp naan lay xaar nga am doom yàlla yàlla dogal kan. ana yan gët lañ leen di xoolee ci société bi soo génnee si mbedd bi ñu lay xoolee bët yooyu ki lu muy xaar wala nga dem xew sa xarit mu am doom te fekk yéen ñaari si mu metti trop sax su ma soñoon damay am doom comme ñooñu lan mooy waral ay couple yu bari di sëy ay at te duñu gis seen takkandeer yan jeexantal lay am ci couple yi nees koy saafara tontu li ci sen émission allo sage femme kuddu bigee la Linguère di ci waxtaan ak Rugiyata Diaw di sage femme alarba bi lay doon bu fukki waxtu tegee fukki simili japp fukki waxtu ak ben ci Radio Sénégal International 92.5 ku ci bëgg a gindeeku mën nga woté ci 33 849 12 45 33 849 12 45.